ah mu jël waaw lan la yow mu jël jël temps Seynabou Ndiaye mais li muy fekk nii kan moo ko way du ñu ma ko foog de yebewuñ ma nii sax àggale léegi ah yabaate dugg doucement ah Nabou Ndiaye ndax mën nga arrière tuuti rek ma xool la ma xool li nga abiyee daal du dëgg ba balaa ñoo jëm ci way tout près tout près jëm fan de kan toi moi de toi déedéet tout près de de là-bas mais jëmoo fii demal ma xool nga sol sa sañse laa bëgg a gis Seynabou Ndiaye demal waaye yow tam nag wallaahi sim luma ma dégg lu ma dégg di yow waaye gisaguma li nga sol areeral ma xool loo may soxoree ni de toute façon gis naa sa ñaari montre nga takk ko mel ne kenkaayeri montre ci lan rek simple ma xol li nga sol ay wa ya ndaw samba si je me trompe pas wa safari ci xalé yi jigéen yi ñi ñett ñi ñett ñi moko ko ñett yoon ñett ñi way e ngeen fu barki dem mo nday e fermo la bus dekk bi yëngu ciow li bari rew mi yëpp diko enjoy ah gu len ngeen ñew indil ñu médaille bi lo dégg mana bi di ngeen dégg lu ngeen def ci dig rew mi nak barke borom tuba ma xol seena bu dégg naa la ngay ni wa seyna bu ndjay mi di melni ne chiffre onze ah madame ye dekk bi yëngu tata bu bal man nga nopp dégg nga gor ba lol ba lol dégg okay dafa lek bi tank du lal bi bi dakoy gañ ané ah, sa càpp yoy mën bënn patu meew lii koket sax waru na de ah lola ci waaye mën a wax de ñett gone yi ñi ngi toj réew mi wa safari ñi ñi ngi toj réew mi kat sen son bi ndekete li ma koy dégg doucement tout près de toi ndekete clip nañ ko ñom ba meng ci youtube bi tudé ko médaille bi ah cium ñi ñoo man chaque 4 mois ñu génné ben sa 4 mois ñu génné ben ali ah, da ngay ni la gay kuy fo nak nak du and ak yéen nag tubaarkàlla ñu eggale sayna bu ñaay ngay na lo li xana biñ ak biñarte sax waru na de de toi mom da tatouage sa ñaar montre yi du la diisal ah tolo ni nit ñi di tak ñaar montre surtout montre yi ngand yi acca rek d'accord xamna man nga nopp gogu ci lay taxawee ñu déglu parole xalé jigéen ñi liñ parole manam dama ko bëgg a déglu ñomit liñ wax manam ku nekk sa so wadal ku nekk li koy ah fi bu safee ba nopi nak lan la ci sàppaleeti ay man safari mi legi barke alxuraan Wagadugu ak Kédougou des koy baagante lépp ci benn guddi waaw xam naa ne kooku it am na patience te am jot Wagadugu Kédougou ni mu soree waaye jar na ko de son bi pour déglu ko rek Mana medai bi pour déglu ko jar na dem Wagadugu jaara fa jóge dem Kédougou sax jar na lol waaw ak lan. des ko mana a fenen fudu ci sen ruq. amut ci réew mi médaille bi moom foofu rek lañ ko mën a dégloo barke alxuraan karim demal youtube kon ne meng youtube boo bëggee xam li may wax wala nga déglu parole yi may wax fañ ko def dugal youtube nga bind safari ngeen déglu seen son bu bees bi tudd médaille clip nañ ko clip bu rafet nag waaye Seynabou Ndiaye mi dina ma tax a bàyyi son bi lii muy layam layam di mel na gerte xott ah lii lan la yow wallaahi sim jarutul sàppali saf na ba noppi yen kay dee leen def sa armoire ngeen dëbb ñu ben merci safari kay waaw waaw kon est ce jotul ma dakkal sama bopp jot na dëggalal sa bop nak dëggalal sa bop dafa jot sax nak nga dëggal ah, sa bop waye seenu mu njaay ya nga dëggal sa bop waye bo ne der der na dett ci karo yi di nga xeyene bi bii koket amna na ko ko war a solde aca waay ah dépassé dugg si na di amo sama temps man dama am sa temps man mi tok di wax ak yow seenu la seenabu lii lan la ah juumoo ci boobu calcul dama rafet Seynou bu Njaay la du ma la xool xaar ma ne safari ma ne ko seen way wi da neex na loolu waaye xanaa Seynou bu Njaay neen dama rafet yéen yii waaw sa tey moom rafet na macha allah Njaay jaata Njaay sira ma ca xobi sama tata bi tata Seynou bu doomu memajar. mama jaata waaw waaw tubarkàlla safari nag seen bi allah mangok pour yeen nga xamne yeen yéen calcul kon son bi du ngeen def ba man am ko wala fo len kay jógee da ngeen dem youtube ngeen taper safari médaille bi di ngeen gis clip bu bes bi son bi di ngeen ko deglu mu neex bu nekké da ngeen ko bëgg tiktok bo la ñëwé pass safari vidéo bi mi ngi kaw ñu épingle ko fa taj lan ko fa da ngay dug def sa challenge si ciow lu bari li ma gën neex ci ñom nak dañoo am yegg yegg ndax xeebuñu kenn àll pété bu euh da def seen vidéo challenge seen son nañ fexé ba xam kan la message la Euh, commentaire ci sa TikTok li nga xamante ne bi artistes yu bari moom lañ rëyee def mooy dugg si TikTok ku def seen son ñu commentaire ko wax ko dëgg yàlla loolu dalu leen macha allah waa Safari yéen ñett xale jigéen ubbi nañ seen compte TikTok nag xaw ko yor compte tout près de toi loo dégg man a xale bu jigéen bi ci taf sama foto naan ma tout près de toi damay jàdd nga jaar na le tout près de moi du am ok merci